tali nag jàmm ñu ànd xëy yër yéenekaay ñu xëyandoo lu jëm ci wàllum renégocier waat contrat yi nga xam ne maanaam moo dox diggante nguurug Sénégal ak waa Sénac SA lu jëm ci autoroute à bi ba léegi nii njaw ma ngay wéy di desu xambe ñaar fukki fan ak ñett ci weeru janvier bi nga xam ne moom la ñu génn ci ab cérémonie directeur général bu Sénac SA moom nag dafa dàq lépp loo xamante ni jëm na ci négocier waat ay contrat diggante état bu Sénégal ak lu jëm ci mbirum autoroute à péage bi kàddu yooyee nga xamante ni nag directeur général bu Sénac SA yëkkati na ko loole nag tax na patronat national bi maanaam secteur privé national bu Sénégal mer ba mara de taali xëy yëkkati seen i kàddu ci yéen a kaay gii di réew mi quotidien jaarale ko nag ci kàddu président Mbagnick Diop mi nga xam ne moo jiite entreprise yu Sénégal la mu xam ne nag nee na contrat bi nga xam ne moo dox diggante Sénac SA ak nguurug Sénégal contrat boobee dañu ko war a négocier waat ndax loole moo jaadu discours bi nga xamante ni nag directeur général bu Sénac SA def na ko discours la boo xamante ni bu ñàkk war ma la te nag amul yenn leçon yoo xam ne war naa taxaw di ko jéem a jox nguurug Sénégal moom président Mbagnick Diop ci yéenekaay groupe promo consulting gi la mu xamle nee na Sénac SA amul benn yoon boo xamante ni respecté na li nga xam ne maanaam mooy terme contrat yi secteur privé national bu Sénégal ñu waroon leen see dénk lu toll si téeméer boo jël ñaar fukk ya ak juróom ci biir contrat bi te ba léegi nii amul kenn ku nekk ci secteur privé bi boo xamante ni maanaam yor na sax un pour cent lu doy waar la lu ñu war a jubbanti la te état bu Sénégal ci boppam nag li nga xam ne maanaam moom la ñuy sàkku ci moom loi bi nga xam ne maanaam moom mooy jëm nag ci obligé investisseurs étrangers yi maanaam ñiy bàyyi ko bitim réew bu ñu ñëwee nag mën a associé mën a lëngoo ak secteur privé national bi loi boobee nag ñoo ngi sàkk nguurug Sénégal daal di koy promulgué yooyu la kàddu nag kàddu yi président Mbagnick Diop la mu ngi ci yéen a kaay gii di réew mi quotidien yéen a kaay gii di las ak enquête ak vox populi ak source à les échos mu xëy dikkal ñu ci collectif ñoo lànk ñoo bañ ñoom nag tey jii si àjjuma ji bëgg nañoo wàcc yi la ko waral nag mooy lu ci koy yokk ak Guy Marius Sagna mi nga xam ne maanaam téye nañ ko bi réew mi quotidien mu ñu xamal naan ñoom caat jamono ji nag la ñuy sàkku mooy askan wi yëpp takk ay sagar yu xonq maanaam bu ñetti waxtu jotee képp koo xamante ni ñëwuloo maanaam bu dee oto nga yor ngay kalaksone di mbiip yéen a kaay gii di laas mu ñu xamal naan ñu collectif ñoo lànk ñoo bañ ñoom daal tey jii ajuma ji li ñu bëgg askan wu baree bari daal di génn préfet bu ndakaaru nag daan nay autorisé li nga xam ne maanaam mooy marche bi yéen a kaay gii di sud quotidien mu ñu xamal naan ñu collectif ñoo lànk ñoom nag ñoo ngi woo askanu sénégal ngir ñu génn caat bu yaanaa maar nee na askanu sénégal kenn wur fee nekk di am lenn lenn loo xamante ni moom ngay taafantaloo ñëpp war a génn ngir nag a kaay gii di Sud Quotidien ñu fekk fa Macky Sall nee na ñi nga xamante ni daal maanaam ñooy sàkku marche dem ba ca buntu palais ba wala place de l'Indépendance ñooñee marche taxu leen a jóg wala marche boo xamante jàmm moo ko tax a jóg loolee yëkkatiwu leen waaye nag képp koo xamante daal sàkku nga ay rassemblement wala ay marche bu dee respecté nga li nga xamante daal maanaam mooy règle yi danañu ko autoriser waaye nag xëy suba ciuyi wala nag gont naan damay dem ci buntu palais ba wala place de l'indépendance Macky Sall nee na képp ku ko fi def danañu xam ne yow mars taxulaa jóg maanaam yee fitna moo la tax a jóg journal bii di la témoigner mu ñu xam lan ñu en tout cas li mooy njëgu courant gi ginnaaw bi mu yokkee ba askanu Sénégal ñu bëri si ñoom di jàmbata li nga xam ne nag moo jëm ci wàllum meew mi meew mi yokku na lu jëm ci wàllum diwlin gi diwlin gi yokku na lu jëm ci wàllum ceeb ceeb bi yokku a nañ sa 3000 francs yéene kaay gii de la turbine mu ñu xamal naan ñu Mamadou Diop mi nga xam ne moom lañ rayoon jamono ja nga xam ne moom la doon lànk candidature Abdoulaye Wade ba ñu ray ko tey li def juróom-ñetti at waaye Mamadou Diop moomee nag li mu doon xeex lu jëm ci wàllum démocratie ba ñàkk bakkanam tey la ñu gën a a li nga xam ne mooy àq yelleefu doomu aadama wala gën a deltuloo li nga xam ne mooy démocratie ci réewum Sénégal Mamadou Diop a xeex bi mu doon xeex ba parti bi di APR béye boo mu def ndànk béye boo mu def attention en tout Sall ki ñoñam ñoo ngi koy surveiller maanaam comme ab terroriste ay téléphone ay déplacement am ay email am page lépp ñoo ngi koy càmbar Macky Sall kàddu yi Moustapha Diakhaté yëkkati daal di bëgg ber langu boppam loolee Macky Sall bàyyi na ko xel loola loolee moo tax ñu koy surveiller yéen a kaay gii de la turbine mu ñu xamal na ñu en tout cas Cour des comptes jamono ji askanu Sénégal gi yëpp jar nañoo génn wax ak waa Cour des ndax bëri na ay rapport yoo xam ne ma ngi mu tee lànk kandaare ba ñu ko joxe journal bii de la témoin mu ñu xamal ñu lu jëm ci wàllum kaaraange ci réew mi ndax jotul ñu xool ko ci atum 2019 bi lu toll ci fukk ak juróom benn ci ay jigéen ñoo xamante ni rey nañu leen ci anam bu doy waar a doy waar a yéen kaay gii di libération mu ñu xamal nañu njóoba sekk mi ñu reyoon ci banlieue bu ndakaaru am na ñeenti nit ñoo xamante ni teg nañu leen loxo ñu ko jege ñi nga xam ne ñoom la mujj a waxal téléphone journal bi ñu fekk fa El Hadji Malick la mu xamle nee na am réew mënu développé ci ñàkku kaaraange